aljuma aljumaatu mubaarak fii si Touba al Maqrousa ci àjjuma ji macha allah di eh, ñeenti fan ci weeru rakki gàmmu fii ci dëkk bu tedd bi aljuma mubaarak aljuma mubaarak fii ci Touba al Maqrousa ci àjjuma ñeenti fan ci weeru rakki gàmmu di eh, dëppook eh, àjjuma ñaar fukki fan ci weeru octobre. deux mille vingt trois yàlla ko yàgg fekkee te yàgg koo tal te yàlla na nañ yàgg am ndam ak ngërëmal Seexul Xadim te jekku ndigal barke borom ta tax wa yi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen